الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد bokk julit yi ñu ngi sant suñu boroom nga la waay yow jaamu yàlla xamal ne ak loo mën a nekkee dang caa war a boole di sant sa boroom subhanahu wa taala ci xéewalam yi nga munta tekk ñu ngi seede ne yàlla dong moo yeyoo ñu koy jaamu ñu ngi seede ne yonentam ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom dong moo yeyoo jàngale nu ñuy jaamoo yàlla ñi ngi ñaan yàlla yàlla julli ci moom ak njabootam ak ñi koy topp ba ila yawmi diin ndokk julit yi suñu borom day moo ñu wax ci téeram bu tedd bi ne nañ ko ragal ñun ñépp moo ñuy bokk bind ci benn bakkan muy suñu bàyyi ñun ñépp di aadam mu bind soxnaam sa di suñu maam ñun ñépp di xawa nee na maa ca génne góor ñu bari ak jigéen ñu bari ragal leen yàlla mi nga xam ni ci turam ngeen di laajante te xam ne yàlla day mi ngi leen di fuglu mbokk góor ak jigéen a ngoog bokk benn cosaan war a ànd ci kaw suuf jaamu yàlla war a jàppalante war a jimbilante donte ne ne bu ñu delloo ci société yu bari loolee jalgati nañ ko am na ñu bari ca ñoom comme jigéen dafa néew doole nangu nañ ay aqam noot nañ ko de boo xoolee bisub démb bi ñu ne lañ koo jagleel bisub jigéen ñi journée mondiale de la femme muy 8 mars bi loolu nag suñu rajo yi télévision yi lu nuy wax nañ ko ci mu war ci mboolem suñuy ndaw ñoo jéem a xam jéem a ràññee ana lan mooy àq bi nga xam ni seen borom yàlla subhanahu wa taala ñépp jéem a xam ana ban aq mooy bi nga xam ne suñu borom yàlla subhanahu wa taala jagleel na ko ñooñu nga xam ne nii moom mooy suñu mbokk yooyu nga xam ni ñoo bokk fu ñu jóge loolu moom mooy jigéen ñi ala kulli xaal mbokk julit nañu xam ne suñu borom yàlla subhanahu wa taala moom moo teral jigéen daa di koy teg place boo xam ni yellul ci benn jullit buy dund ci kaw suuf muy réere place boobee la ci jiitu mooy su dee ne dañ koo jàpp comme yaay te jigéen bu nekk dafa ñaan yàlla nekk yaay loole dañuy gis ne mbokk jullit islaam dafa santaane ne ni nañ ko topp nañ ko yërëm nañ rafetal jëm ci moom ci ni muy nar a feeñee mooy àjjana ji tax ñuy kër këri ci kaw suuf yoon ba ci gën a gaaw mooy buñ ko jaaralee suñuy wayjur gannaaw loolu mbokk julit suñu delloowaatee ca la nga xamee ni ni moom mooy texte ya dañuy fekk suñu borom yàlla subhanahu wa taala di wax ni moom day moo dogal ci bu ñu jaamu keneen ku dul moom moom moo dogal ñu rafetal jëmi ci wayjur yi su dee dem nañ ba kenn ci ñoom yegg ci ak mag nga xam ne mën na doon koo xam ne coono lay doon mën na doon sax ku jukkoom soppeeku kàddu gu gën a néew di uf loolee bu ko ko wax lii mbokk la ñuy gis ni mooy la lislaam wax suñu borom mu lay suufeel seen kanam ca xam ne mënoo leen a fay del ñaan yàlla subhanahu wa taala mu yërëm leen loolee ñu dégg ca ne bu ñuy dund war nga leen a laayi biir di leen ñaanal amma nigam ciy dund la ñuy ñaanal ka wane gannaaw moom waxi noppi kookoo gën a yeyoo ci ay ñaan ay yéen bokk julit benn saxaaba bu ñuy wax Muawiya ibnu Jahima nee na damaa dikkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca ak Makka ga ma ne ko man day ñëw naa la ma indi nag mooy ànd ak yow sama desutub dund jihaad fi sabilillah ngir ngërëmal yàlla ak aljanna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waaw ndax sa yaay nekkul di dund mu ne ko akakay mu ne ko dellul nga laayu ko biir nee na ma dem toog bu mujj daal jihaad bi muy indi itteel ma ma dellu siwaat ay yu mu yàlla yónni damaa bëggoon a ànd ak yow jihaad fi sabilillah sàkku ci la nga xam ne muy ngërëmal yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waa ji yow yaa ngi dugg ci alqaange xanaa sa yaay nekkul di dund mu ne ko waaw mu ne ko demal xamal ne àjjana ji ngay sàkku mi ngi ci sa suufu ndëggu yaay yi ay demal topp sa yaay respecté ko màggal ko bu dee àjjana rek ngay wut ci jihaad àjjana gi foofu loolu mbokk da ngay gis ne bu dee ne dafa am koy teral jigéen ay yéen ndawal jurit ñi xam leen ne ka ca jiitu ca kenn séenu ko sax mooy seen diina ji di diine lislaam ay waajur yàlla nee na ñu dafa jekk ci ñoom waaye benn waay ñëw na ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ci lu abu hurayra netti lii buxaari soloo ko ne ko ay yu mi yàlla yónni man day kan nga jàpp kan nga may digal ma gën a rafetal jëm ci moom waxu ko sa sëriñ waxu ko sa imam waxu ko sa directeur waxu ko sa général d'armée wu kan la ko wax ka gën a yey nga rafetal njëkk jëm ci moom moom mooy sa wajur wu jigéen sa yaay nee na mën a ko waaw ak kan mu ne ma ak sa yaay gannaaw kan mu ne ma gannaaw sa yaay ba ma laaj ko ko ñetti yoon lim may wax rek mooy gannaaw ba sa yaay te ñeenteel ba la may doog a wax ni gannaaw ba sa baay loolu mbokk da ngay gis ni sunu borom yàlla subhanahu wa taala mooy mi nga xamee ne nii moo jaarale loolu ci làmmiñu yonente bi ndax keroog ba muy wax dénk na doomu aadama yi ñu def njëkk ci seeni waajur borom bi da caa séppi yaay daa dina yaay day moo ko ëmboon ci coono coono yi teg ci kaw coono moo ko wasin gannaaw ba moo ko nampal ñaari at loolu muy wane ne xatta ak bi ñu yoral baay ak yaay moo ko gën a kawe loolu mbokk mooy bu doon dañuy tënk ci lislaam naka la tere la yaay amma lislaam naka la tere la soxna mbokk xam nañ ne suñu borom subhanahu wa taala dafa ne soxna yi day ñeel na leen àq bu toll ne bi leen war yow góor boo ma ne lem say baaraam sama jabar yoroon na ma lii ak lii ak lii xamal ne it war ngaa mën a lem say baaraam ne yoral naa sama jabar nangam nangam nangam doonte ne yow la yàlla def ngay kilifa ndax dépense yi ngay dépensé ak yu bari waaye xamal ni ak yu toll ne li war sa soxna ak yooyu yow it nga ko nga ko yoral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ngalla waayi maa ngi leen di dénk ku nekk na nangu dénkaaneb yàlla yonent bi ci moom te mooy def njëkk ci soxna yi mi ngi noonu loolu mbokk da ngay gis ne suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam teg na te sax ne xam leen ni ki gën ci yéen góor ñi mooy ki gën ca la nga xam ne mooy ay soxnaam naam te xam leen ne it yonente bi la caa teg ne man maa gën ci samay soxna kon kan mooy góor bi gën firiwul ne ki nga xam ne soxna yi ginaar la ñuy añee di réere armal yaa ngi fees del waaye déedéet mooy bépp góor boo xam ne taxawu na soxnaam lépp lu yàq diineem mu aar ko ca lépp lu koy jegeel yàlla mu xiirtal ko ca jàngal ko ko aar ko ci lu koy lor ci àdduna ak alaxira yonent bi alei salatu wasalaam nee na góor gi moo gën ci góor ñi ay yéen ñi nga xam ne tey yéenay laaj aqu lislaam aq bi jigéen yor ci lislaam xoolal bu dee ni ñooñu ay doom yu jigéen lañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nañu day nee na képp koo xam ne yàlla may na ko ñaari doom yu jigéen mu rafetal jëm ci ñoom ba baa yàlla subhanahu wa taala def ñu majeur maag moom ni ñaari baaram lënkaloo lay lënkaloog moom ci biir ajjana loole da ngay gis ne muslim soroo na ko beneen xadis boo xam ne lan la ci yonent bi di wax daañu nekk kiiraay ñeel ko ci sa woro loolu mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax mbokk islaam ni mu tere la ni mu tere la yaay teral ca ka nga xam ne mooy doom bu jigéen teral ca ka nga xam ne mooy soxna même bu dee ne da ngaa nekk tante wala bajjen wala sœur te tamit l'islam ñëpp la boole teral yonent bi alei salaam danaan wax xam leen ne seen tante yi seen aqi yaay la ñu yor mi ngi noonu gannaaw ba loolee la nga xamee ne nii moom mooy seen sœur te tamit ñooñu ñooy ñi la gën a jege gannaaw sa yaay ak ka nga xamee ne nii mooy sa doom yooyee suñu borom yàlla santaane ñu jokk mbokk te képp ku ko jokk yàlla jokk ko loolu muy wañe ni jullit dëgg dëgg dëgg mooy xool ay tantaam ay sëram ay bajjenam lépp loo xam ne nii wareef la bu mu waroon a defal ay woo juru ak i doomam yu jigéen itamit muy fexe di leen ko defal mbokk jullit xam leen ne day nii la sunu borom yàlla tërale ci diineem la nga xam ne mooy àq bi jigéen war a am fi nga juddoo nekk xale bu ndaw ba baa fa ngay màggate suñu borom mi ngi topp jigéen di laaj ay aqam ci ne nañ ko jox loolu nag itamit suñu delluwaatee tey ci waxi tey ñu bari jàpp ne islam day dafa delloo gannaaw jigéen tëj ko ca kër ga rek façon ñaawal bu nekk da ngay gis ne noonu l'islam yi dañ ko ñaawal ah ci jigéen nan la ko l'islam def waaye mbokk julit ak safaanoo ak texte l'islam yi boo ca delluwaatee gis nañu ni texte l'islam yi boo ca delluwaatee yàlla yemale ne góor ak jigéen ca la nga xamee ne mooy gëm gëñ war a gëm ci jëf yi nga xam ne dañ ko war a jëf et que pay ya nga xam ne nii moom la leen di pay ñoom ñépp ñoo ca bokk yem góor ëppaliwu ci jigéen ci dara jigéen góor du julli mukk yàlla fay ko lu ëpp la jigéen julli du woor mukk yàlla fay ko lu ëpp la jigéen woor ak makka ak sarax yépp a ci bokk yem suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne fastajaba lahum rabbuhum anni la udiru amala amilin minkum min zakarin aw unsa baadukum min baad suñu borom mu ne du ma neenal ji fi kenn góor ak jigéen yéen ñenn ñi ca ñeneen ñi lañu bokk ay benn ngeen suñu borom yàlla garantil ni képp koo xam ne da ngaa def lu baax gannaaw ba nga jëmee ngay góor wala jigéen dinaa la dundal dund gu tey ci kaw suuf ca boo ñëwee ma teeraw la la nga xam ne mooy aljanna kon mbokk diine jàngi noonu yàlla yemale leen képp allahuma lu dul ay yenn poste yoo xam ne nii ku ne xam na teqalee bi am ci diggante góor ak jigéen nga xam ne yéefir yi ñoo ko jëkkoon a ko mettre ci na loolu munta nekk waa jooje nga xam ni bindoon na benn téere muy Alex Carrel te ñu joxoon ko ci prix Nobel de la paix adduna yépp reconnaître ko bokk na la muy wax dof rek mooy wax ne góor ak jigéen ñoo yem abadan yemuñu looloo tax kon suñu boroom xam ne ne yemuñu firiwul ne góor a gën jigéen abadan waaye nag am na lu góor mën a taxawee ci jigéen mënu koo taxawee looloo tax ay lu néew loo xam ne sa baaraam yi loxo nga koy wàññi suñu borom ne lii moom na ko góor ñi féetewoo ndax yéen jigéen ñi yéen a ngi féetewoo loo xam ne góor ñi mënu leen ñu caa remplacer abadan góor du ëmb du wasin du nampal wala tax suñu borom mu ne imaam yi bàyyi leen ko góor ñi atte yi bàyyi leen ko góor ñi ak yu néew a néew a néew mbokk julit islam day xam leen ni li ñuy dund may na jigéen mu moom lu ko neex ci alal mën na jënd mën na jaay islam day xam leen ni nee na képp koo xam ne aji jege ñaaleeg bu dee jigéen ñi nañ leen jox seen wàll ci miraas ma islam may na àq jigéen mu dem lebi bor ngiree def commerce am wala rek la ay problème am islam may na jigéen alalam balay dee mu def testament ne sama alal gi nañ ko defali nii islam alal jigéen bàyyi amu ci àq jëkkër amu ci àq kenn amu ci àq moom moo koy gérer na nga xam ne ni noonu la ko gisee mbokk islam ba tey it dañuy gis ne nii la jàppee ci ne jigéen kenn amoo droit di ko lor ca gën jaa néew ci lor suñu borom yàlla tëkku ne seen soxna yi day bu dee ne ñoom topp nañu leen fala tabghu alayhinna sabila bu leen leen topp ci dara xam leen ne lu ngeen am ci moom kattan yàlla subhanahu wa taala moo leen ëpp kattan ca loolu ab tëkku la bu yàlla di tëkku mboole mi góor ci ñu moytu di tooñ la nga xam ne mooy jigéen ay yéen bokk julit bokk na tey li nga xamee ne moo gën a jaxase suñu bopp ndaw ñi mooy lu aju ca la nga xamee ne mooy liggéeyu jigéen mbokk lislaam bañul jigéen liggéey waaye da ko utal ay borne pour aar ko ana kan ci yéen mu musul dégg ne Khadija bintu Xuwaylid mi nga xam ne moo nekkoon njëlbeenu soxna suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam moo nekkoon presque commerçant bi gënoon a màgg ci Makka bal sëyam ak suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam commerce boobu moo ko jur ba muy wut ko ko yóbbul njëggam ca Syrie ca lañ ko tegtal suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam histoire bu gudd na waaye ci gàttal loolu moo waral seen sëy kon ndax keneen am na droit di wax ne jigéen amul droit dugg ci liggéey abadan am naa nag lan la lislaam wax mooy yow jigéen de yàlla dalaa def ngay doon koo xam ne da ngay xëccaate am na ci góor ñi ñoo xam ne dañoo feebar kon bul dem di jaxasoo góor ñi ci ay liggéey heure booy génn di liggéey na nga suturaal sa awra bul génn comme ne góor ñi di génne lii day mooy la nga xam ne loolu la ci lislaam di wax waaye bu dee lii am na la shakka ne islaam may na jigéen mu liggéeyi donte ne islaam dina ko faratal nga liggéeyi islaam place ba mu ko affecté woon muy place bi gën a kawe moo way toog ca kër ga liggéey liggéey bi gën a complet gën a matale mbooli mi liggéey ca mooy la nga xamee ni nii mooy yor ak këram ndax la shakka ne mbokk góor ak jigéen yemuñu gis nañ ni ñu koy waxee sànq jigéen lu ci bari weer wu nekk am na ay baax yu muy gis am na ci ñoom loo xam ne loolu day jaxase seen yaram jigéen mën na am neuf mois ca mën na am sax ñaari at yu ne mu ëmb gannaaw ko di nampal ku mel noonu boo ko bëggee ne sa jëkkër ji nga xam ne loolu lépp lu ci def dara fu mu taxaw taxaw fa loolee mbokk da nga koy sonal wallahi xataa yéeféer yi nga xam ne seen jukko ya yàquwul am na benn américain jigéen bu ñuy tuddee Phyllis McJohn la am na benn téere bu mu bind lan la ko tuddee mooy kër day muy réewu jigéen mi ngi noonu kër mooy réewu jigéen mi ngi noonu nee na loolu amul kenn ku ciy sikk sàkk lu dul ab dof ca loolu mu ne ñun day bu dee dañoo bëgg a puus ne fokk ñu liggéey mu ne moom xamul benn liggéey bu jar doomu jigéen saggane la nga xamee ni ni muy këram loolee kon mi ngi noonu day fekk ne kon heure bu jigéen génnoon di liggéey day fekk ne wóor na ko ne sama liggéey bi du yàq dara te sama kër na ma nam naroon a doxe amma bu jàppee ne génn liggéey dana yàq dara ci këram xamal ne day loolee da ngay gis ne ak doyee dala comme na ko yéefir boobu waxe ca mën na am sax xamul luy lislaam waaye fekk quatorze siècle ci gannaaw suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam mi ngi dina doon wax ne wal mar'atu ra'iya fi bayti zawjiha la nga xam ne mooy jigéen day moom mooy gardien bi nga xam ne moom moo war a aar lay xew ci kër jëkkëram wa hiya mas'ula an ra'iyatiha ca heure bu ñëwee yowm alqiyama yàlla dana ko laaj sa kër borom kër lépp lu ko doon xew yàlla dana ko ko laaj ndax mooy responsable kon mbokk mi ngi noonu islam dañu liggéeyu jigéen waaye nag li ñuy wax mooy ci charte te xatta ñooñu nga xamee ne nii tey ñoo puus jigéen ñi nañ liggéey yi lu bari ci occidentaux yi seen xalaatkat yi rëcci nañ ko ba da ngay gis naan ñu ngi xalaat tey boo demoon dëkk yi mel na ay Japon dañuy puus jigéen ñi boo amee ñetti doom ñu jox la salaire complet nga toog sa kër am na ay xalaatkat ay américains yoo xam ne dañ doon wax jigéen ñi nañ leen tuddee des ingénieurs de maison naam ñu bëri ci ñoom bëgg nañ jàng yor lijaasa yu kawe waaye comme kër yi léegi la fa nekk ci matériel électronique kenn xamul nu mu demee nañ leen di wax des ingénieurs de maison te tey jigéen ñu bëri rus nañ daje ci mbooloo ñu ne ko nooy liggéeyee mu ne man ménagère la ay sama kër laay toog dañ ko rus waaye wallahi mbokk julit ménagère boobu kooku toog këram di saytu njabootam moo gën a kawe ministre moo gën a kawe procureur moo gën a kawe loo mën a xalaat mbokk lii ab tënk la boo xam ne dañ koo tënk ci lislaam naka la gisa aqu jigéen bu doon dañ koy méngaleeg beneen xalaat bu dul lislaam na doon démb la ci jahiliya arab wala démb la ci civilisation gréco romaine bi nga xam ne ñoo jur tey occident mboole seen ba ba tey ji ni ñuy gisee occidentaux yi ni ñuy yore jigéen wallahi da ngay gis na sori yoon na lool la ëpp ci ñoom seeni yaay ma nga ñu sànni ca hospice ya la ëpp ci ñoom faalewuñu leen màggatu tubaab bu jigéen bu amul ab xat bu koy wéttali alkuna lu bëri ci ñoom seen doom bu jigéen boo amee ñaar fukki at génn nañ la responsabilisé nañ la bokkatuloo lii mbokk da ngay gis ne dafa safaanoo lool ak ñun suñu diine suñu diine moom moo ñuy wax ne xam leen ne ci ay aaya yi borom bi subhanahu wa taala day la leen teqalee def ñuy góor def ñuy jigéen ngëree góor ñi di mën a dale ci jigéen ñi mu def seen diggante la nga xam ne mooy cofeel ak yërmaande looloo tax ñun lislaam jaglee lu ñu jigéen 8 mars benn jour ci année bi dañoo jagleel jigéen année bi yépp mooy jëw julit bu góor sa respect ci jigéen ñi année bi yépp la sa mbaax ci jigéen ñi année bi yépp la sa taxaw ci jigéen ñi année bi yépp la lii mbokk mooy la nga xam ne moom la ñu suñu diine sant yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne xam leen ne day julit bu jigéen du bañ julit bu góor du bañ mukk julit bu jigéen boo xoolee am na lu la naqari ci moom it boo xoolee da ngay gis am na leneen loo xam ne moo la neex ci moom mbokk julit lii mooy la nga xam ne nii islaam wane na ko allahuma du ñàkk nga gis ni woote woo julit ba pare di toroxal jigéen mbokk loolu mi ngi mel ne rek ñiy woote woo julit te duñu julit duñu woor ñi wootu woo julit di naan sàngara ko agressé ndax loolee islam moo ca gàttal ñu déedéet texte l'islam yi leer na ay njàngalem leer na am maa nag nga judd muhammad wala fatima ca jëfewoo l'islam kon la ngay jëfe kenn du ko delloo l'islam ñi ngi koy jëfe ci sa gàttalilu waaye amul benn julit bu jàng l'islam xam l'islam lu ca gën a néew lu ci bari lu dul xam ne ne ne day yàlla subhanahu wa taala teral na jigéen na doon yaay la bàjjen la tante la sœur la doom bu jigéen la lépp suñu borom yàlla teral na leen màggal na leen ngiree ni bo borom bi daal di koy tëje ni julit ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi lenn la ca ñoom la ñu bokk dañuy diglu lu baax di teru lu bon di taxawal julli di ah joxe azaka ànd di topp yàlla ak yonente bi suñu borom mu ne ñi mel nii day sa yarhamuhumullah yàlla subhanahu wa taala dana leen yërëm yal na yàlla boole ñu ca ñun ñépp yal na yàlla def yërmaande diggante góor ñi ci ñun ak jigéen ñi ci ñun yal na yàlla boole ñu ñu jaamu ko jaamu gum ñuy may dund gu tey ci àdduna jaamu gum ñuy dajalee ci àjjanaam ya kawe bépp jukko boo xam ne dafay nar a yàqal suñu ndaw ñi yal na yàlla fegal leen ko yal na yàlla leeral lislaam seen bopp yi isa leeral ko seen xol yi te it wërsëgal ñu dund ko dund ko tey yal na yàlla rafetal suñu mujj yéwénal ñu suñu kër yi indi jàmm ak aafiya ci biir kër ya lépp loo xam ne jaxas ak seytaane la yal na yàlla daqal ñu ko yal na yàlla subhanahu wa taala boole suñuy xol te yàlla subhanahu wa taala may ñu aafiya fi dunia wal axira subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin